wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri man abaat da nga ñëw nemmeeku si liggéey bi xam ne yaakaar naa lu mat weer nii sëñ Abdou mu ngi fi ñëw nga fi mooy ñaari yoon nga di fi moom day wax ji du gudd xanaa sant yàlla bu baax rek nangu ay dogalam te muñ ko nag sant day waral ndoolin muy itam ku ko def yàlla jox la xolub muñ nga mën a mucc tiis wi jërte jàmbat ndax day mel ni alal yi yàqu ak yu mel ni yu jëm si woon ci jëmm yi la waaye loola fekk ko kon nag bu Touba ci kanam jóge nga xam ni itteem yëpp mooy defar dëkk bi ak dimbali taalibe Sëñ Tuubaa yi bi li amee sëñ Abib ko jiite taxaw ci taxawaay bu rafet ndax la ci war waxtaane woon nañ ko àndoon naa feeg moom ba muy waaj jënd cinq yeeg yi ñëw fi ba jënd nañ ko nag ba defar ko taalibe itam sanc nañ ko taalibe Sëñ Tuubaa nag ñooy aali Sëñ Tuubaa te am na lu leen yàlla jox loo xam ne waruñu koo fooyee waruñu koo caaxaane war nañu ko def ci yoon yàlla yoon yàlla rek a ngi nii taalibi yaakaar sëñ Tuubaa ba noppi néew doole lañ ama ko suñ néew suñ borom natt leen ba yóbbu ko kuy def defal foofa ëllëg yowmal xiyaamati al akbar foofu amul eh, looy yóbbaale dangay jiital rek boo demee fekk fa ku jiital nag doo yóbbu dara fii nag ma des na fee jiital ndax leel ko xiif ak dëkkal ko ak jox ko ma naan dara ko te ñii yëpp soxla nañ ko ku am xaalis indil ku am ceeb indil ku am diwlin indil ku am ciment indil ndax soxla nañ ko te néew nañ doole te njaboot ak sëñ Tuubaa la njaboot suñu borom la sëñ Tuubaa nag lu mu waxoon ci dëkk bii wax ko ak njabootam ni leen doomu aadama bu kenn bàyyi ci biti ci naaj ndax da ko fonkum ko fonk wër ta xiif itam wër ta mar moo tax bu jëkkoon njaboot sëñ Tuubaa foo dem ci kër yi da nga fekk ay mbaar fekk fa ay ndaa fekk fa ay wanag fekk fa lépp daal nag ñaar laa yebal ci kuy laaj ak kuy joxe fi xamewul nag ñi joxe ñu ëpp ñuy laaj kon nag tubaa ci kanam li muy laaj lu xam la waaye fi mu koy def xam nañ ko kon nag ku bëgg a liggéey sëñ Tuubaa na ñëw jàppaleen ci liggéey bi ñi ko jiite jub nañ bokk nañ ci sëñ bi am nañ yaakaar tali bi ñuy àndal itam di ñu jub lañ te kenn mënu ci laatal dara ndax fi ñu ko def wóor la te jëlee ko fa yombut ay ay mboolooy sëñ doo ko jëlee kon nag ku bëgg a def sëñ na ñëw fii ku bëgg a jàppale sëñ Tuubaa na ñëw fii sëñ Tuubaa nag loolu ci lañ koy jàppale waaye sànn wi dem dellu si la ndax def ci yow lay dellu si kon nag lu ci waay def ba mu ko xeeb ba mu ko naw ndax sëñ Tuubaa am na fay te dana la fay kon nag ñu ngi woo julli yëpp di woo taalib yëpp di woo képp ku bëgg a def lu baax daal fii mënees na ko fay def te ko def yàlla gis ko yonent bi gis Sëriñ Tuubaa te ne bëgg nag ñu gis sa jëf kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo tubaa ca kanam mu andil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a yónnee ci tubaa ca kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci konti Touba ca kanam jërëjëf Serigne Touba. wajalilaayi maskani Touba baat misrak mi abijaayi xayri man